laaj teewaayu bis bi ak guy gi 95 mi noo ko taxawoo guy gi. kontaan rek di ñaan yàlla yàlla may ko ndam su ma rakk la ma xaar la su ma tërëndoo kilifaam la su ma ma nekk mag écurie bi mu nekk suma kër kon du ma def lu dul su amul combat dem ma fenn ma ñëw ci moom. di ñaan di daal yàlla may ko ndam di nuyu ñëpp nuyu États-Unis ñoom Gambey Bo Abdou Medina. guy gi Yamou Ndiaye Laye ma kenn dam guy gi damay xaar ak xalaat ak déglu. ne guy gi lan lay xaar ren ba takkul jàjj yi dugg ci digg géew bi. ci non non du Euh, euh, combat yu bëri mënuñoo fi loolu bëri ndax saison moo xat mais yàggatul quoi saison moo xat élection yeeg euh, drapeau Sénégal beeg ak coupe d'Afrique beeg yooyu mais incha allah incha allah léegi-léegi yàggatul ñu ñëw bu soobee yàlla yàggatul. ma ma jox la ñaari anecdote guy gi Papa Sow loo ci parce que guy gi Papa Sow moo gën palmarès guy gi ñëpp combat la mais dafa am combat dafa A plan B. waaw ak plan C plan Papa Sow moom sam kenn werante ko buñ lamboo rek dañuy bëri bu soobee yàlla. yàlla na yàlla defal jàmm. amiin ñu déwénee yàlla nga am combat. amiin yàlla ba may combat yàlla na am kontaan naa. merci beaucoup.